Euh, Thiel balaa ñuy génn comme boo xamante ne euh, bu yàgg ndox mi. Hmm. problème ndox mi yéen si toll parce que liggéey ngeen ko de fan ngeen si toll loolu sëñ bi moo ñu jox ndigal. Hmm. bu ñu ko joxee. Hmm. banditisme ak affaire woyi affaire affaire robel yi nekk Touba. robel yi nekk Touba booy seet robel dëgg. mooy affaire banditisme bi ñuy doxal Touba. affaire yooyu ñu doxal ñun mhm. basiru mhm. bu ko señ bi joxe ndigal suba suba mu dañ fa euh, na ci euh señ bi tok na président tok na ko ndox mi gis nañ jafé jafé mais nañ ci lu mu gëna gaar nañ ko saafara waaw d'accord na xam nga nag euh kër jàmbur boo fay dem mhm. da ngay def waxtaan ak kilifa ga bu la joxe baat ba ba ñew yone la ndaw jox la ndigal la man nga tambali ah kon señ jox mën ndigal ko waaw waaw non ndigal ju ba daaw wax rek wax teunk mais ndigal jógu fa gis nga gis nga Touba man kenn mënuma tënk kenn mënuma téré wax lima ma Touba affaire banditisme bi ne Touba ak affaire rebelle le imbécile yi nga xam dañu dëkk Touba bu ma moy ñi nga xam dañuy saboter liggéeyab sëñ bi billahi wal kitab di jox Touba boy wër bandi wala woyu dëgg-dëgg duggal Touba waye sëñ bi yow Touba ñu ne 30 nangam forage mo fa nek ndox di manki xel nangu na ko. nañ ma génn ñetti forage yu yuy def ndox mu neex Touba benn moo fa ne buy def ndox mu neex oh. te Touba gépp dañuy naan ndox mu neex ba da ca sangu barkeb Seydina Mohamed billahi wal kitaabi man des fois ndox maa ndox mu neex mi laay jënd bidon laay jënd cent vingt cinq sotti ko ci soobe sangoo ko ñoom ñoo yor seeni oto di wër di ko jaay ñoom ñoom ñoo yor seen oto xam na jafe-jafe fi mu nekk gis nga ñooñu ñi demoon ci gouvernement Macky Sall di sàcc suuf ñoo ñoo gëm sax ñu ne Touba su ma waxee ñu ne Touba mooy ñi saboote liggéeyu sëñ bi ñii ci seen biir xam nañ leen gis nga ñooñu ñi woon ci Macky Sall seenaw dàll moo leen gën kuy yées kuy bon kuy jàpp doomeeraam dëgg jàppal ñooñu man li ma gën nit mënu ma koo teree wax. dëgg dama dëggoo li ma la sëñ bi sëñ bi mhm. li ma bëgg a wax ñoom du ñoo ma koy teree wax mhm. ñoom seen bopp la ñoral waaye loruñu waa Touba. yow man nga gëm tubaa 30 nangam forage ne fa nit ñi mun ñu naan ndox mu ndox mu naqari ba waxuma laa sangu te ci jot man boo demee sama kër tey ndox mu neex la ñuy toggee moom la ñuy sangoo moom la ñuy def lépp nga xam ne di nga dépassé lu mat vingt mille ci mois bi ci njëndam ndox parce que mënutoo am accès ci 33 forage amatoo ci accès benn forage mooy mandal waa Touba gépp booy jàpp doomaraam ak wuyu ak bandi ak criminel jàpp leen ñooñu ñëpp dañu leen war a traqué nokk leen ci nga sant Mbàkke nga sant Buso ak koo mën a sant nga bokk ci nga kaso sëñ bi loolu du yoon sëñ bi lii dañ cee war a dut baaraam samp ci man xeex bi may xeex ci laa koy jëmale xeex naa Macky Sall ba mu daanu damay xeex ñii nga xam ñooy saboté liggéey sëñ bañ daanu parce que duñu ay nit parce que ñu bëri comprendre ñu yow waxoo ak sëñ bi mais ñi déedéet wax yow c'est que tax ma comprendre la di la fi loolu bokk na ci pour nit ñi mën a yeewu xam ne yow yow sa yoon waxoo sëñ bi mais ñi yàqal sëñ bi nga yor quoi dafa am ñoo xam sëñ Touba nga xam liggéey sëñ Touba bi ñu koy yàqal ci ñoom ci ñoom la tàmbalee mm. ñoo xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi ma lay wax nii parce que xamul tax amuñu benn diplôme ci xam-xam. amuñu amuñu amuñu xa amuñu lenn loo xam ne àdduna lu dul tria ak naafeq ak fen ci la ñuy ci la ñuy dundale seen bopp. ak di dund ci sëñ bi sëñ bi da nga ko war a dundal mais waroo ca dundal lii moo bëri Tuubaa kenn ñi ma wuccee dut baaram yow sëñ bi lii ma leex lu garaaw la nag ñi nit ñi bàyyi xel sénégalais yi nañ def attention trente nangam forage su ma jubal ne trente sept forage Tuubaa mm. 37 forage lu tolni Touba ñu am bir Touba 37 forage ñu nan ndox mu nakari naqari ñu ko sango amuñ ci accès ci ndox loolu sabotage la señ bi nañ wante deug ñun ñi ndox mu neex lañuy sango tay mom lañu togg mom toggee def lepp te du manki billahi wal kitab suma demone demoon suba suba may sango ki ba nga rasa bu jexé auto ndox bi ñew ñew duyat bam fess to Touba lepp mo fa ne bu demal Touba gi jël sa camera nga wacc gis nga lool señ bi dinaa ñew sax maa ñu def ci rapportage Touba kon bo dugg ñaa kon bo dox 10 mètres wala nga dox 15 mètres gis fa mbànn recevoir bu mag bo xam ndox mu neex la def mais ki leen jaay ndox mu neex bir Touba la koy jël way ñom wa Touba la ñom ñi nga xam ñoo dirigé wàllum ndox mi ñoo ñooy def loolu parce que sabotage la seen poste lañ ci dóole kenn ni ma ci dut baram ndox yi ñu koy jaay ndox yi dañuy ñew dañuy ñew xol fi tay fi diggante bi ñu xol fi 30 mètres hmm. wala wala wala 15 mètres ñu defal ben mer ab ab ab ab ki mbànd ndox yu mag yoy mbànn yi demaat def ko noonu ko def ba Touba gépp nag ñu koy ñu koy ñu la koy jaayee par vingt vingt litres yi ñu la koy cent vingt cinq sëy nga xëy suba ñaata ñaata vingt litres nga mën a nga mën a nga mën a utiliser ah. ay milliards yi milliards lañ ci dund moo tax ñu saboté ndaxam Touba gis nga lii bi man de maa ngi lancé appel Diomaye bu fekkee sëñ bu jox na ko ndigal ndoxam Touba ñoom nañ arrêté ndox immédiatement ndox moom bu mu fa doxati ah, ñun dañoo jaral ñuy fay parce que li ñuy dépassé li ñuy dépassé ci ndox moo gën a seer fay ndox 25000 francs wala 30000 suur maa li nga dépasse ci bi ndox yooyu da ngaa mën a xam na mu toll mais nañ ñaan yàlla ñun nañ ñuy fay ndoo ndox gaa bu problème de robinet yi di xeli waaw ah, moo gën dëkk fa tey dëkk ci village yi moo gën fopp tey dëkk fa ndax problème ndox village sax boo demee ndox ma da nga ndox maa ngay xeli Touba ñu dëkk fa mënuñu am ndox mu xeli man li ma wax suñu robinet un an gisuma robinet fu mu xelee ak ak siit koñ ba kenn xelee du fa ndox yaroon cuux cuuxal sax xaaj bi xelee du ndox li ma laan dama ne la ñoom ñi ko yor xam nañ ko ñoom ñoo la gën a xam ndox mi demut fenn nit ñi naanu ñu sangu ñoo la ko gën a xam ñoom ñi jaay ndox mi xam nañ istala fa seen i bidon xam nañ loolu seen i seterne lañ teg istala ko fa yor seen oto ndox ñuy wër di jaay Touba gépp ndox ndox mu neex du manqué Touba te li ma wax ñaari forage amul Touba ñaari forage kenn du ko gis Touba benn ndox mu neex moo fa am sinon yaa fa gasam ci la ñuy war di jaay ndox mi ñenn ñi root saas diwin te fa manqué kon xam nga ni ñoom dañoo liggéeyut moo tax ma ne la dama ne la benn lañ mburu foofu ko fëriñ te loolu ay sëti sëñ Tuubaa ñu ngi ci biir barke alxuraanu karim kon ñoo saboté liggéey sëñ bi te loolu sëñ Muntaxa xamewu ko nii ndax ñi ngi diris dañoo war a leeral comme dugg ci yoon na ko Tuubaa gii ndox mënatu fee am te ñi ngi jaay am ndox moo xam ne maa ngi wut mm-hmm. sëñ bi dëgg dañ koy ñemee soo ko ñëwul mën ngaa noppi pourquoi ñi jege sëñ bi yow li ngay wax nii comme ni nga wax naan sëñ bi jotati ñi jege sëñ bi pourquoi ñoom àggee ñu sëñ intérêt. am lu ñuy mos quoi ñoom. waaw yow saa sëñ bi fii dama lay wax rek sëñ bi sëñ bi dund ko ñu bëri allah yow li sëñ bi yëfam moo ko téyel boppam lu garaaw laa lay wax. Mhm. moo tax lii ma la accès amul ak amuñu accès euh, àggut ci sëñ bi. parce que ñi ko war a jot war koo jottali. ñoom ñoom ñoo xam li xam réalité bu baax parce que te ñoom seen biir kër ñoom seen biir kër boo demee sachet mi ngi xel li màggalu Tuubaa bu jotee boo demee buntu kër sëriñ bu ne dañ fekk lu mat juróomi oto ndox yoo xam dañoo sarte taxaw te robinet yi ña ngay xel man mii nga xam ne maay taalibe bi damaa ñëwoon tubaa ngir yër yërmande su ma dikkee mënu ma am cot ndox yi faaw ma neexale wala ma am baraaloo door cee jot te oto ndox yi dañ koy jaay quarante mille franc ba cinquante mille ba soixante mille boo ko mu doo am oto ndox tot ndox yi gratuite la te su màggal di ñëw la ñuy gën a tëj wane ndox yi gën a am problème sëñ bi lii ma la wax lu wér la. kon maanaam maanaam kon Touba ñàkkum ndoxam sabotage la quoi. sabotage la gis nga jamono sëñ Saliou Mbacke. Mhm. defoon nañ robinet mbedd. Mhm. ba màggal Touba ndox amuta doon problème na ci bàyyi xel bu baax. Mhm. li ma la wax en 2004 xaw ma 2005. robinet mbedd dafa amoon ba Touba ndox manqué wu fa loolu na ci nit def attention ndox manqué wutoon Touba màggal woowu. da nga daan tourné foo tourné ndox mi xel mais dañoo dem ba dugal ci loo xam ne ñoom dañ ci business di ci liggéey. warna naa mën a xañ moroomam nitam dara ba pare ëbbadiku di ko ko jaay maam loolu xam nga triant la quoi maam nga bu fekkee loolu am na sàcc la. waaw dama lay wax nag waaw kay nak benn waaye def na ma sa rakk la ci man. Hmm. moo ma bëgg la wax li tax ñun ñun ñi nga xam dañuy bubboo ay julit bari na ci xam sax ñu du jullit ño leen gën. Hmm. daf na ma lima lima daj senegal hmm. daj ko Mali. daj ko Libi. daj ko Niger ba dugg Italie. dëkk yi ñuy woowee ay jullit bi mu duggee ci dëkk Touba yi ñooñu jikko jiñ ma woon ñoo gën ñi barke Seydina Muhammad sama baat ci kaw mu ñoo gën ñi yoon yi li ma ci jànkonteel ci nga am ñoom ay julleen bu waxtu julli jotee dañuy taxawal bi ma ñëwee ba ak si Italie nga xam ñoom xamuñu sax lu julli bi ma ñëwee fierté bi ma am ak kontaan ak dalal gi ma dalal ñi ma romb ay sama mbokk julli sax ñoom ñii ñoo leen gën ci ay jikko loolu moo am Touba xam nga lu fa am da cee bëri ñoo xam ne dañuy dem jàkka ji su jokko su jóot pour wane maa ngi julli. mais ngi julli mais jëfuñu jëfi jullit. gis nga euh, damay cité kenn maa rahmati mi nga xam ne tubaab bi ay mi euh, euh, murid ay milliards lañ ci dugal. ñoom buñ amoon ful la. doxee nañ war a doxe doxe nit sëñ bi bëgg dëkk dox ko ñoo naan arrête ndox mi kenn dootu ko fi jaay nañ jublu ci liggéeyu sëriñ bi robinet kër gu ne robinet dafa xelli buñ dee fay ñu fay moo tax ma ne liggéeyuñ te dërëmu dërëmu murid yi ñoo fa dem man samay ñaar dërëm may dagg ticket ba sonn ba arrêté ticket yi may dagg mm. man dama leen dut baaraam maa war xamati man mm. dootuma dagg seen ticket dama arrêté ticket yi may dagg mm. parce que gisuma benn liggéey boo xam dafa jëm ci askan wi man ma teg ko bët dëkk Tuubaa juddoo fa yaroo fa màgge fa sëñ bi nañu waxante dëgg te bàyyi tapale yi gis nga par parlo bi moo fii ku nekkul ci yoon koo mën a doon ñu ne la li ngay moo fa am ña fa nekk ñu ci ëpp laal wax di seeti sëñ Tuubaa wala ñoo xam ne mbokk lañ wala seen i xarit wala seen i dendandoo ñooy dund ci taalibe yi waaye dundaluñ yoon wi amul lenn luñ mus a defal yoon wi laaj addee def seen poste lekk laaj maa war xamante lekk yooyu mooy seen métier maa war xamante léegi mu mat quinze ans ñu ngi koy laaj lan lan def Touba ndox nit ñi mën a jot ndox mi te ay centaine de milliards la leen nit ñu joxe seen téeméer yooyu ñuy xeeb ak seen fukki dërëm ay milliards la waaye li ma la man xam naa ko sëñ bi ana lañ lan def Touba nga xam ne Touba tey ndox ma fa lañ boo dem ci Sénégal gox bi gën a manque ndox ci Sénégal Touba loolu loolu waroon nañoo dem ba sëñ mu taxaa toog mu ne ko gox bi gën a manqué ndox ci Touba ci àdduna Touba gii la nit ñi naanuñu jar na ñun bu ñuy fay nee jar na bu ñuy fay ndox ñun ñu fay parce que dañoo sonn dëgg la moo gën moo affaire affaire affaire mm. boo demee tubaab boo ko génn doo génn état leen gën ñi fa ne da am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manque yu wala eh, sax jafe-jafe yi eh, gaaw a daanu seen gaam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di de ci seen néegu sëy ku bëgg ci gaam kàttan boobu ci 77 490 09 20 ak seen gaam kàttan jàngoro yi sëy dafa ci même